إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد بلادي رب اشرع لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي نون noo ngi نوي di nuyu nuyu jullit ak mbokkum jullit tam te di باخ siyaara bu baax a baax tey gën a santati yàlla bu baax bañ fekkeete bis bi di ko ñaan yag ko fekke at yu bare bare bare nak serigne touba te at mu ñew rek gëna xéewale gën a murite gën a yaatu si bàkk sëriñ Tuubaa noo koy ñaan baax baax kaddu na kaddu kàddu cant rek lay doon waaw cant rek cant nag mënta weesu cant sant nak ñepp nak ñepp suñu ñepp nak mu bayut kenn bëgguñu di tudd ay tur ndax ku tudd ku lim da nga matal waaye képp koo xamante ni teew nga fi wala nga yebal fi ndaw sant nañ la bu baax ndax nit amul dudul bisam te képp koo xamante ne am nga sa bis nag ñu dagg yitte yi ñëw fa kooko amel nga ko cant ndax kenn ku ne xam ne ne jamono ji xataay bi rawatin nag bis bii nii ñu koy woote nii la ko ñeneen di wootee te li muy xat-xat-xat kilifa yi dagg nañ seen i jata seen seen temps ñu ànd ko ñu muy si bëccëg gi ba si guddi gi ak niñ ko fanaane yëpp ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal suñu borom gën leen a dëgëral ak Sëriñ Tuubaa xam naa kàddu yi di gën a sañ soññaat waa daayira bu baax a baax di leen wax waa leen kumba waa leen waaw waa leen nag ah, gàtt na lool waaye nag ku jëfut ko dégg kon dinañ leen wax waa leen kumba dinañ leen wax leen góor ñu gën a takkuwaat gën a jaajuwaat te jàpp na dañuy doo ko tàmbali rek nañ jàpp ne liggéey bi day doog ko door loolu nañ ko jàpp bu baax a baax suñ ko jàppee rek incha allah lu ñu defoon ren ba ëllëg ba ëllëgee dañ def lu ko tax lu ko lu ko lu ko faw ndax bu ñu xoolee mbir mi fañ tàmbalee ba fi ñu egg si danañ xam ne ak yokkute am na waaye nag loolu lépp nañ jàpp ne liggéeyal sëriñ bi moo demee noonu sëriñ Tuubaa moom ay mbiram mu tànk ginnaaw tànki kanam rek te kenn ko ne na see sóoboo rek noonu nga see noonu nga see toll kon nag nañ gën a jaajiwaat gën takkaat laxasaay yi gën a feddaliwaat ko seef bi bu soobee yàlla incha allah am nañ yaakaar ne fu ñu bëgg mu àgg fa bu soobee yàlla danañ fa àgg dañu ñaan yàlla rek yàlla may ñu ak njub te may ñu fan wu gudd te ànd ak wér-gu-yaram bu soobee yàlla bu ñu ko defee bu ñu ko suñu borom bu war defalee incha allah bis bi fu mu bëgg ñu àgg fa dana fa àgg bu soobee yàlla te lii rek firndeel na ko sant nañ bokk yëpp nag ndax ni ma ko waxee woon rek ma di tudd ay tur ndax boo tuddee da nga dul da nga dul matal kilifa yi fi teew yëpp yëpp yëpp gis nañ leen ak ñi nga xamante ni teewuñu waaye yebal nañ seeni ndaw ñoom ñëpp gis nañ leen te kenn ko seen na ko jàpp na nga jàpp si bis biir xam nañ ko ñoom ñëpp ñoo ngi leen sant di leen gërëm di sant it waa dëkk bi bu baax a baax rawatina way juru xale yi ndax kenn ku ne xam ne ne daayira lépp si daayira bi ay tànk lañ te tànk yooyu seeni kilifa ak seeni seeni kilifa ñoo leen jàppale mm-hmm. ndax addiya ji ñuy laaj xam nañ ne tànk yi amuñu ko mënuñu ko buñ ko joxee seeni kilifa la ñoo ko ñoo ñoo leen si dimbali ñooñu nag ñoom doom ñoo ngi leen sant bu baax a baax te di leen ñaanal suñu borom dolli seen xéewal bu baax guddi gi nag day guddi gu mat a fonk guddi gu bari ngëneel guddi goo xamante ni boo ko dundalee benn guddi gi dundal gi ñu ko dundal nii yàlla nañ ko yàlla nangul te laqal ñu ko fa yàq yëggul ya maanaam day mel ne ku dund juróom-ñett fukki at ak nangam yu teg juróom ñu teg ay weer ak i fan ngay yendoo woor bëccëg gi di fanaane dundal guddi gi comme nii ñu ko doon dundee dundalee nga def ko diiru juróom-ñetti fukki at tiyaaba jële suñu borom di fay nii ñu dundale guddi gi genn guddi googu buñ ko buñ ko dundalee noonu tiyaaba ji suñu borom di fay ki nga xamante ni dafa def dafa yendoo woor guddi yi bëccëg yi fanaane naafila guddi yi tiyaaba ja muy am si diirub juróom-ñetti fukki at yooyu genn guddi gi buñ ko dundalee noonu tiyaaba ji toll noonu dañuy am loolu nag ku ko yàlla fàggul waroo koo sàggane waroo koo yamale yeneen guddi ya ya yam yam ya wéy ku leen yamale it suñu borom yamalewu leen loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax guddug laylatul xadar ku ko yemale gëneen guddi na nga xam ne yow sa gàdd xel moo ko waral waaye suñ borom yemale wu leen loolu nag tawféex la tawféex nag bu la si yàlla boolee ah na nga am tawféex rek am na loo xamante ni nit da mën na koo bëgg waaye du ko mën a am waaye nag ku ko yàlla jagleel da nga ko fonk bu baax a baax te bañ ko yemale yeneen yi kon nag nañ gën a fonk bis bi te ñu xam ne bis bi mooy sunu bis ku am na loo xamante ni ñëpp bëgg nañ ko suñu borom tawfeex la ko wërsëgalee ko loolu da nga ko war a fonk te jàpp ko bu baax a baax a baax kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax gën a fonk bis bi gën koo jàpp incha allah bu ñu ko defee rek lépp lu ñu song bu soobee yàlla danañ ko daan waaw ndax ñun xam nañ ne ak yokkute am nañ xam nañ ko bu wér a wér ndax bu ñu xoolee ak njëlbeen ñun ni ko daan dundalee ak nii ñu koy dundalee xam nañ ne ak yokkute am na xam nañ ko bu baax a baax ndax guddi gi ñun dama ko daan dundal fii si barab bi man kese ak ñima yalla yàlla boole loon buñ kurélee ba sonu ñom ñu tedd nelaw man damay fanane tok fi ci buntu ci barab bi di jang xasida ba fajar jot non la ko man kese bu yalla dogalee ci dem ba wa daare bi bëgg bis ñew laaj ma bis buñu tiand ma maa ne leen kon nañ jël lettre xata lettre xata gi buñ ko daan dundal danaka danañ def danañ dundal bis bi ba bam bam bam jeex buñ dajé waté def réunion réunion générale li ñuy li ñuy li fere lépp lépp daanaka du du romba ay 35 mille ak nangam nangam yi daf nañ ko lay taxat ba tay bu ñu lay taxat lay xataree ba dajawaat def réunion général liñ fere ci lay taxat xatal yépp ay 35 mille ak yoy lay doon te ren ku ne kenn ku ne xam na ne mbir mi yokk na ko wéré wéré wéré ndugg mi rek ay 160 nangam mille la ndugg mi kese kon nak loolu ak yokkute am na loolu nak dañuy ñaan mu jëm kanam inshallah dañ ci gën a farlu bu baax a baax bu saw yàlla bu ko buñ nga defee rek fuñ bëgg mu yegg fa nañ fi yegg te ñu gën a fonk bis yi nga xamante ni daayira bi mi ngi koy def ndax lépp liggéeyal sëriñ tuba la amul dara luñ ci def loo xamante ni kenn tax ñu di ko def sëriñ tuba rek tax ñu di ko def muy safar gi muy muy muy layatul xatab gi ndax safar gi kenn ko na gis na ba koy daayira bi def fañ doore woon ay kilo café lañ daan def café kese lañ daan def léeg-léeg sax café gi daawoon mat daanaka bu ñu amee kilo café ñetti kilo sucre yi koy suukar ñu la ko mu jeex léegi nag dem nañ ba di doole ci di togg ay añ loolu nag ak yokkute la mbir nag doo ko sos yàlla may la dafa da ci taw yaa nga dem ba yokk bëgg a bàyyi mu naax saay loolu nag dara àdduna jël ko kon nag safar gi nañ ci gën a la bu baax a baax a baax waaw ndax xam ne liggéeyal sëriñ tubaa liggéeyal sëriñ tubaa nag moom amu tànk ginnaaw tànk kenam rek kenn ku ne nag na nga sa rek noonu nga say tooyee nañ ci farla bu baax a baax noo leen di sant bu baax te di leen gërëm te ñaan suñ borom yàgg ñu ko teewale at yu bare bare ñi nga xamante ni ñu ngi ci seenum njàng ñu ñaan suñu borom dafa leen tawfeex ñu leen ñu seen njàng mi fi ñu ci bëgg ak ñu yegg fa diplôme yi ñu ci bëgg am yépp ñu am ko ci ba noppi nag amub liggéey boole ci ñi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi yaxantu it wala ñu ngi si yeneen dafa yëngu lañuy yëngu yàlla nañ ci yàlla nañ ci yàlla dafa ndam lu kawe seen njort ak Serigne Touba ñu ngi sant bu baax tey gërëm xam naa kàddu yi dañoo xol bee xol bee fees ba li ñu bëgg wax lépp mënuñu ko wax sax waaye nag ñu ngi sant ñëpp ñëpp nag rawat na suñu way yu yu toog nga xamante ni ñu ngi ànd ak ñun guddi gi ba bët set ñoom tam ñoo ngi leen di sant baax te leen ñaanal suñu borom gën a yàggal gën leen fa yàggal te wéral seen cër ndax lii rek la suñu fekkee da ngaa woote mbir wëlbale ko gis say wajur toog ànd koog yow ba mu jeex tàkk loolu ak la kon nag war nañoo xam ne kon li ñuy def day caaxaan loolu rek war naa mën a tax ñu takkaat laxasaay yi jaajiwaat te xam ne nag dañuy doo ko doo bu ko defee di sant nga Ngabou Média suñ xaadim doom mi ngi teewal leen fi ñoom itam yu ay wëlëre yu yàgg nag xam naa nag suñu xaadim moom moom si la si la bokk ndax moom yàlla dogal na sunu doom la moo suñu taaw waaw loolu xam naa am na ñoo xamante sax xamuñu ko ñu ngi koy rek muy dema ko ñëw moom doomi suñu alaaji loola moom suñu xaadim bi doomi alaaji loola xaadim nag say say bàyyi nga ñëw ak say maam li ngay bañ a dégg say bàyyi say maam say nijaay waaw ñoom rek nga nga fekk fi mu ne waaw kay ñoom tam ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ndax ñoom itam wax dëgg yàlla ñu am couleur lañ ndax sii di yàlla dañoo boole mu nekkoon daara seen Cheikh Salim gii waaye yàlla boole ñu boole goo xamante ni diggante dongo ak mbokkum dongo am na rek la ñu yàlla boole ba mag ak ngaabu yi bi ma ko si jëlee andi ko si kilifa yi ñu waxtaan ak kilifa yi boole ko kilifa yi mu jël màggal gi boobaak léegi nag wax dëgg yàlla si la ñuy jàppe ba tey ba li si xew lépp xew si ci la xamante ak suñ xaadim mii ci la xamante ak suñ ibrahim mii xamante ni ak ñeneen ak ñeneen te indi gi ma ko indi ci dëkk bi rek moo ko waral moo tax bi ko si suñ ibrahim waxee loola it xamutoon ne daayira bi am dara laa ci bi mu ñëwee fii wax filmaloon na yàgg doog maa seen bi mu ñëwee ma ah sëñ maa ngi jéggalu xaw ma woon loolu nag te teewul la la mu waroon def lépp def na ko loolu nag kóllëre la xamutoon li mu si def lépp xamutoon ne maanaam daayira bi man dara laa si kóllëre gum seq ak ñii rek moo taxoon mu def li mu def waaye ba mu xamee ne maanaam mbir mi dara laa si te ñuy bu doon xamee sama jëmm a tax mu xam leen mu ne ma nag dinaa ñëw jël jël programme bi lépp nanu ma sax damaa am beneen programme boo xamante ni Dakar bi laa koy defee waaye dinaa xaaj équipe bi ndax mi ngi Dakar fim ne nii te guddi ga muy ga muy ga muy ga muy jël cent cinquante mille lañ ko fay cent cinquante mille lañ ko si fay waaye dane ma dana ma damay xaaj équipe bi bu yéen du ma leen laaj dara waaye li ngeen ma jox baax waaye nag dinaa xaaj équipe bi dinaa dinaa man damay dem Dakar waaye dem dinaa yabal ku ñëw loolu na kóllëre la yéen te bëgg naa nag ngeen jàppal ma ko bu baax te ñaanalal ma ko moom itam mook suñu jàmbaar ji toog ngeen jàppal ma ko bu baax te seen site bi ngeen abonné si bu baax a baax nag ndax ay murit lañ te ay tuur tànk lañ te dañoo jug ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa na ngeen si abonné bu baax ngaa Ngabou Média abonné leen si bu baax a baax gën leen a yokk yi ndekam vi yi moom dara am na si xorom donc leen sant bu baax di leen gërëm waa daara ji cant gi moom yàlla dogal na dama ko waroon a dama leen waroon a ndax bañ tàmbalee dundal guddi gi ba tey ñun ak ñoom ñoo koy ànd ba yàlla dogal te ren ji ñu tudde leen ko tudde gi ñu leen ko ñu fanaan fi naka jekk dañ fi naan fanaan ba bët set xelay fàtt nag moo tax tudduma leen waaye yéen laa waroon jiiteel ci cant gi ñoo ngi leen sant bu baax te gis nañ mbir mi gis nañ jàpp gi ñu ngi ñaan nag kóllëre gi suñu borom bi saxal ko dàkk ñi ñu koy dementee ñu dem ba suñu sët di ko dementee noonu di ak dikkalante su ko defee lii ma sëñ Ibra doon déy léegi it noonu danañ ko ñaan bu baax a baax suñ fàllu waaw ngeen réussir total waaw sampi kër am ak njaboot ñu liggéeyal suñ tubaa loolu moom danañ ko ñaan bu baax a baax soxna yi ñi si bëgg ay borom kër suñ borom jox leen ay borom kër yu murite waaw yu murite te te te loxo yi gaaw waaw bañ a bañ a mel ne sama waa ji may jàkkaar lool waaw loolu dañ leen ko ñaanal bu baax a baax ak suñ tubaa taxawaay bi mu taxawaay si bi mu taxaw si bis bi loolu it ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax bàyyi la jaay na mu koy leeral léegi ne ma maanaam fi mu oto bii nga xamante ni moo indi jàngkat yi moom moo ko jël moo ko luyee ndax otom bii lañ doon àbbu mu ne maanaam comme ko oto bi nuñ koy waxatee maanaam maanaam ñeenti nit la mën a ñeenti nit la mën a juróomi ñeenti nit la mën a jël si ginnaaw bi buñ si yéegee ngelaw li leen upp mu ne loolu daal mënu maanaam néeg na koo def ci ay jàngkat yi kon dañu wutal auto mënoon nañu aar otoom rek waye nak loolu ak bëgg la ak pëseefu ak yitteegoo bu ñu yitteewoo bis bi loolu moko sabab tey ibrahim yi woon na ma sax ne ma monsieur kat neena dafa andak euh, bi Galaba dem kër Soxna May te bu fa jógee dañu dem daru Karim xamna dana guddé waye lu mu guddé guddé guddé dana ñew te na ko waxé woon la ko kon da délégation bu mu àndal da leen a mujj bàyyi moom ñëwaat si bis bi loolu nag ak yittewoo la ak ak pësteef ak ak bëgg loolu nag moom ñu ngi ko si sant bu baax a baax waaw ñu ngi ko sant bu baax te gis nañ nit ni mu koy defee si bis bii noonu la koy defee si yeneen bis yu dul yi ndax bisu xeex yi ñu doon def fii bi ñu doon def fii waxuma ko woon waxuma ko dara waaye daa jékki-jékki rek lépp lu ñu si war a def ci ay xéewal moo ko def andi ko te boobu programme wuñ ko ñun boobu dañoo programme woon rek tàngal suñu café rek toog fi jàng xasida boobu waxtu wuñ ko yëgee rek ñaanalante dem waaye daa jékki-jékki rek andi lépp loo xamante ni maanaam luñ fi jëfandikoo la si wàllum xéewal keroog daa jékki-jékki dugg ko andi ko nga xamante ni lépp moo ko def si coobare boppam loolu nag bëgg lu baax la kon nag ñoo ngi koy ñaanal moom doon bu baax a baax suñ borom bi gën koo dëgëral gën koo kàttanal ba yéen a jëm am si liggéeyal gox bi wala si liggéeyal réew mi mu def si lu kawe njortam ñu ànd koog moom si fekk akuk tal bàkk Sëriñ Tuubaa te garaat yi suñ borom ñi ngi ñaan suñ borom mu gën a yokk mu gën a yokk te oyof tooy nag oyof tooy genn gàllankoor bañ ci am ak Serigne Touba ni ñu ko koy ñaan lañ ñaan ñaanale mbooloo mi yëpp nag waaw noonu lañ koy ñaanale mbooloo mi yëpp xam naa xol xel day fàttu rek te bëgguñu di tudd ay tur ndax boo tuddee day am ñooy bàyyi te ñi ñi bisi bi ñi si ñi si def seen addi yëpp maanaam doo mën a lim ñëpp waaw doo mën a lim ñëpp ndax ñi si def seen addi dafa bari lool rawatina suñu kilifay bopp yi nga xamanteni dañuy ñëw def seen adiya bu nopp wëlbatikuwaat andat ak ñun bis bi ku si melni señ sëñ daam nga xamanteni def na si adiyaam def si aw ñaqam ba noppi bis bi biñ tàmbalee waxtaan yi daa ñëw ànd ak ñun ba waxtaan wi kii mu doog a demaat te loolu kilifa la bu ko neexoon mën naa yem si lam def rek dem doxwaat yeneen yitte ko ne xam naa leetu xatar dafa xat te programme yi daa bari waaye teewul ba mu jógee fii dafa def direct Touba waaw war a war a siyaara jiwaat ñeneen ak ay sarax yu mu war a dem ak xeet yu mel noonu moo tax na bëgg ñu di tudd ndaw suñ Modou Kouré it si suba teel la fi jaar kenn ku ne xam na mbir mi ni ma xate waaye lam def si bis bi xam nañ ko waaye teewut fajar teel bi muy dem fi la njëkkee doo ko jàll ñoo ñëpp nag xam nañ seen taxawaay bu baax a baax noo ngi leen di sant di baax di leen gërëm te ñaan suñu borom bi doole xéewal yi bu baax a baax di ñaan yàlla ñu fekk ko at yi baree bare di ñaan yàlla nag yokk ba yokk raw zaahiran wa baatin rak suñu Tuubaa at mu ñëw rek gën a murite gën a neex gën a xéewale yokk ba yokku nag waaw rak suñu Tuubaa noo ngi koy ñaan bu baax a jërë ngeen jëf daa dundal waaye ren nag ñu am ci ak ak coppeeku ñu ne daal dañ koo bëgg a fésal euh, maanaam waa dëkk bi ñëpp génn ñu dundal guddi gi ba fajara xañ na loolu moo tax sax mbooloo mi xaw a néew nii waaye ñu bare baree bari jëkka fa te amul na ñu yéene teew fa waaye xañ na ni ngeen koy dundale fii noonu lañ koy dundale foofu am na ci kontaante bu baax a baax di ñaan ci barke yonente bi suñ boroom teg leen loxo bu baax ci daayere bi ndax euh, ñun ñi tamit gis nañ bu baax a baax euh, jàpp gi comme ni ma ko waxee léegi rek nit koo koo tuddee rek xamal ni am nga euh, ak cofeel ci moom kon ñoo leen di sant bu baax di leen gërëm waa daayere bi ñëpp góor jigéen mag ndaw daal dañuy jël nuyoo beeg cant gi daal di ko teg ci loxob Serigne Rijaal Ndiaye moom mi nga xamante ni mooy jëwriñu daayira bi mu eggal leen ñu ko ci waa bi ñëpp ñoo ngi sant bu baax a baax xañ na dafa guddi te waxtu wi xam naa euh, dafa xaw a gaaw kon dañuy taxawandi foofu rek di leen sant bu baax a baax ci ci ci tudde gi ngeen ñu tudde xañ na comme ni ñu ko faral di waxee rek daayira bi yaax na lool ndax am na suñu yaay yoo xamante nii euh, waroon na fee teew waaye ni mu demee comme ni ma ko waxee rek noonu la waaye daayira bi moom yaatu na lool te ñëpp bëggoon na noo teew waaye ñoo ngi am kontaan bu baax a baax di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan lépp lu ngeen di sàkku ci guddi gi rek yàlla na leen ko suñu borom defal te ngeen jot ci ni ngeen ko bëggee rek waaw xañ na nag euh, am na ci yoo xamante ni moom euh, daal jërul wax waaye ak kontaante la rek waaw ak kontaante la rek xam naa kon euh, am na. addee joo xamante ni tamit jotoon na koo dajale euh, xam naa Baye mi ci sama wet te koy jël jébbal ko sëñ Rijaal rek te wax dëgg yàlla am xeeb nañ ko loolu nag waaw loolu daal ñoo ko def ci guddi gi te di ko bu baax a baax di sant bu baax euh, di gërëm tey xam naa dañuy wàccee kàddu gi foofu rek. sunu taxawaay waxuma en tant que monsieur le maire mais en tant que doomu Ngaabu dëkk si dëkk bi war nañ koo ànd ak yéen. kon yeen ñoo ngi leen ñaanal bu baaxa baax taxaway bi gëna yag man gi gëna yag ngeen yag di def li biñu ko defal diko defal suñu waajur diko defal kilifa yi si dëkk bi señ Abdou Karim yow nak dañ la amal ak cant yow ku dëkk ngaabu rek amé na la cant parce que mën na ne yépp su taxawé yow yow mi ñew nekk ci daara ji dëkkal ñun di jangal gone yi di leen gindi luñu nek nekk nga nekk sax kon yow amee nañ la cant ñu ngi lay sant bu baax mais nag dangaa delloo mbàttu sa euh, ndaa la xuma lañ koy wax. noonu la ni delloo tamit di ziare Serigne bu Bane mi nga xamante ni moo doon def waxtaan wi ci suba muy waxtaan wu am solo moom it ñu ngi koy jaar bu baax di ñaan suñu borom dëgëral ko kàttanal ko te gën a wéral baat bi noonu la ni ziare tamit soxna xari loo moom Serigne Ibrahima Lo di waajuru sëriñ Saaliw Baal moom it ñu ngi koy ziar bu baax di ziare tamit sëriñ Abdul Lahat Lo moom sëriñ Hasan Lo moom it ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ñaan suñu borom kàttanal ko te dëgëral ko noonu la di ziare tamit daayira jërëjëf sëriñ Touba bi nga xamante ni mooy ba sëriñ Muudu May Lo im na sëriñ Daam Lo im na sëriñ Seex Lo moom it ñu ngi koy ziar bu baax di leen wax ne gis nañ ni nga xamante ni noonu lañ àndee ñun bis bi at mu jot kon ñoom itam ñu ngi leen ziare bu baax a baax ñu leen ziar bu baax a baax te di leen ñaanal suñ borom kàttanal leen te dëgëral leen ginnaaw loolu nag dañuy ziare daayira yi nga xamante ni mooy dayre xidmatul xadim bi nga xamante ni ñoo ànd di liggéey. ñu ngi leen ñu ngi ñaan booloo gi nga xamante ni suñu borom def nañu ànd ko yàlla nañu ko gën a boole ba yéene jën am ci liggéeyal ko Serigne Touba ñu yeggale ko nan ko bëggee ginnaaw loolu nag danañ tànn ay jëmm yoo xamante ni heure bu ñu yeggee ci bis bi dinañ ànd ak ñoom di ci liggéey muy Serigne Abdoulahi Ndaw Maam Góor Diouf Serigne Omar Ndiaye Serigne Saliou Ndaw Serigne Sewru Ndiaye moom it ñu ngi koy ziar bu baax a baax. ndax gis na nim mu sonnee ci bis bi ak yitte ji mu ko jox na depuis ñu ne ko yow lañ ko dara jaalee ba léegi am xëyikum ngontam yépp ci bis bi la ko def kon ñu ngi ñaan yàlla na ko suñ borom kàttanal te dëgëral ko ba yéene ji nga xamante ni am na ko ci suñ borom defal ko lu kawe njortam ndax gis na xéewal yi nga xamante ni indi na ko fi joxe ko te doonul ne biñ ko tud biñ ko dara jaalee bis bi rek lañu ko jox waaye dafa doon loo da koy yàgg ànd ak ñun muy lépp loo xamante ni daayira woote na ko muy safar gi ni def di di laylatul qadar gi heure buñ ci yeggee rek dañu gis xiiwal yi nga xamanteni ni ko yëkëti di ñu ko jox kon mo amene ñi ngi ñaan ko suñu borom katanal te degeerol ko ci darajey Serigne Touba non la ni ziaré timit soxna biram juuf moom itam ñu ñaanal suñu borom wërël ko te katanal ko te dëgëral ko ndax dafa saso ci bis bi lo xamanteni at mu jot dana fexé ba indi lola mu doon ko xamanteni ku jox cër bis bi la ku ko fonk la itam ndax gis na ni mu ciy sonnee ak yitte ji mu ko jox moom it ñu ngi koy ñaana yàlla ak suñu borom kàttanal te dëgëral ko bu baax a baax noonu la ne ziare tamit Serigne Mbacke Mbodj mi nga xamante ni day ànd ak ñun bis bi ak sëriñ Ibra Diouf moom itam ñu ngi koy ziar bu baax ak Serigne Moudoura gis nañ ni nga xamante ni noonu lañ ñu kàttanalee ñoom itam di ñu dooleel fu mu toll heure bu ñu gëstoo gis leen kon ñu ngi sant te di gërëm kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi ñoom ñëpp rek. ndax doon ay ndaw te boo wee boo wootee gestu gis say kilifa sa ginnaaw suñ borom dana la gën a maanaam da nga gën a amaatu fit danga nga gën a jaajuwaat ndax boo wootee gis say kilifa rek da nga xam ne lii nga nekk kat loola mooy dëgg waaye boo woote woon gisoo genn kilifa rek danga xoolaat sa bopp xoolaat li nga xamante ni noonu ngay kii kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax kàddu yi di sant tamit Ngabou Média bi nga xamante ni yàlla def na depuis ñu tàmbali bis bi ba léegi ñu ngi ànd ak ñun ñoom it ñu ngi leen di ñaanal yàlla na suñu borom kàttanal leen dëgëral leen fi nga xamante ni foofu lañ bëgg a yegg yàlla na suñu borom yeggale leen foofu noonu ndax gis na yitte ji nga xamante ni jox nañ ko bis bi di ko ànd ak ñun ñoom itam yàlla na suñu borom fulal leen matériel bi dafa leen mu doon mu defal leen mu doon loo xam ne ay télévision lay doon ñuy ñëw di ko di ànd ak ñoom guddi gi ñuy teew fii di ko jàllale kon ñu ngi leen gear bu baax a baax di leen wax ne kontaan nañ ci yéen ñu ngi jégalu bu baax nag di wax ne sant na mboolem koo xamante nii rek yaa ngi ci dëkk bi ndax daayira bi gone yi ndaw ñi nga xamante nii ñoo ci nekk man nañ ne seeni waajur ñoo leen di jox ñuy teg ñoo luñ laaj ci daayira bi rek ñoo leen koy jox ba pare wëlbatiku ñoom itam àndaat ak ñun di yëkkati seeni àddiyee di ñu ko jox kon ñi ngi sant mbooleem koo xamante ni yaa ngi ci dëkk bi gis nañ jàppale gi ak kàttanal gi nga xamante yéen a ñu koy def yàlla na suñ borom fay leen te kàttanal leen mbokki daayira yi fi yëpp ñu ngi leen di ziare rawatina mbokki daayira taxawunu ñoom itam ñu ngi leen ziar bu baax a baax ndax gis na pëstéef bi ak nangoo liggéey gi ak dogg gi ñu ngi jéggalu bu baax a baax lu jub ñu santee ko yàlla te xam ne mooma lu dëng ñu xam ne matadik doomu aadama la ak ñàkk mën a wax ñu ngi tuub te di jéggalu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Barah jumaa ji asaan risaan awijanan zamaan wasin baraan ku sopp Sëñ Fallu say faatu tabbi aljannatu laahi ayu alaaji baara أيو العجبان لمن يراعي أسد أدنى يراعي خد وفعل في جورا لمن يراعي كما فلتك فلتك في جورا لمن يرى بايك بايك لمن يرى من الدلال وبالألال خلي السرايا إن الدلال من الدلال وبالألال خلي السرايا دلال وبالألال خل السراي إلا دلال دلال وبالألال خل السراي الكتاب وخل الكتاب واقبل مرحبا يا سنسراي تابه خلي إذا ما أخل كتابه أقبل المتابة يا تنزرايا كتابا كتابا متابا Sadhu Come on. Thank you. Quran ba malura.